Euh, coow li fan yi c'est la pétition initiée par notre consoeur Oumy Ndour euh, mu am une adhésion massive parce que question électricité dafa dafa dafa dafa dafa dafa crucial rencontré nga euh, Oumy Ndour ak ñi mu àndal ci ci ci ci ci mbiru pétition ci mbiru pétition boobu lan la Senelec teg ci table bi pour euh, satisfaire ñi nga xam ne ñoom ñoo am les ces ces ces récriminations là. bon d'abord recevoir naa leen bu ma ñëwee ñoom sax dañ ne ma DG yaakaaruñ woon ne yow yaa ñuy recevoir ma ne leen bu pétition bi yeggee 5000 laa jël décision ne ñii il faut ma toog ak ñoom. bu pétition bi yeggee 5000 laa jël décision ni ñi il faut ma toog ak ñoom parce que fu ñu toll nii tey client bi moo ñu fa yóbbu client bi mooy suñu raison d'être kon mënuñu am client yu toll noonu nañu dañu am lu leen naqari ci service bu ñu leen di jox ñu ne duñ leen déglu moo tax bu ñu ñëwee. saluer naa démarche bi nee naa leen lii ngeen def ngeen war a def te même na sama gëm-gëm mooy lii buñ ci génnee man dina am loo xam ne dinaa ko ci jàngat pour gën a améliorer service bu may jox clients yi ndaxte ñu koy wax seeni préoccupation ak li ma dégg ñuy wax yépp xam nga en fait lii moo tax ma jël conscience que wax nañ gën a mun a améliorer communication bi. donc da ngay félicité wu ci initiative bi. si démarche bi dama koy félicité si démarche bi parce que c'est une démarche citoyenne te dama soxla lu mel noonu parce que maa ngi jot mes rapport ñu may wax ne kii nañ et les le personnel du Sénégal le Sénégal en train de fair de meilleurs efforts mais xam nga lu tax ma ne la dama si jàngat lu bëri ndaxte équipe yi. ku si déplacé wu dem si client bi seeti ko sa directeur d'unité da lay exiger sa chef d'agent da lay exiger rapport après nga rendre compte ñu jox ma ko et c'est là où où j'ai mesuré le déficit de communication bu exister aujourd'hui ñu ne clientèle bi c'est là où compris que client bi xamul sax règlement de service bu am entre Senelec ak ñoom que client bi xamul sax ne nan la ñu war a utiliser kii bi loolu nag comme nu ma la wax bu ñuy raisonner on naa toujours di couche vulnérable couche vulnérable ñu protéger la mais ñeneen ñi nga xam ne ñooy les cinq cent quatre-vingt-six mille clients là ñooñu am nañ une puissance boo xam ne bu ñu leen dégloo jox leen information yu si war def leen lu ñu war a def et man je pense que mun nañ nekk sax suñu relais pour que ëllëg nouvelle culture énergétique bi nga xam ne moom lañ bugg a inculquer aux Sénégalais ñu def si d'ailleurs Oumy sax wax naa ko ne na nekk ambassadeur de bonne volonté Sénégal mu ne ma nanguwul euh, mu ne mu ne nanguwul nanguwul waaw mais parce que fan non xaaral ma yëgali mais ma ah. mu mais xam naa ne parce que question pertinente yu ñuy posé yëpp même gis nga am na si ñoo xam ne génnee nañ ay seeni kii TikTok dem nañ seeti leen mais après bu ñu ñëwee ba équipe yi yegg fa ba ki ak ñoom c'est la où j'ai compris effort yu ñu war a def yu nécessaire maintenant nag maintenant nag maintenant nag meemu na man reconnaitre naa suñu problème pour ñu avancer il faut ñeneen ñi reconnaître seen problème et que maintenant ñu jàpp ñu ku nekk jàpp moromam ci ay qualité pour que ñu mun a avancer pour corriger suñuy défaut. parce que et je pense que c'est ça euh, la pétition de Oumou Ndour va servir à ça. bien sûr Sénélec mu ngi xoolaat doxalinam. bien sûr parce que euh, souvent consommateur bi dafay dafay pointe du doigt dafa mel ni. Mm-hmm. dafa am de l'arrogance dans la démarche de Sénélec dafa am de la violence dans dans dans dans, dans les actions yi Sénélec di jëmale ci citoyen bi euh, am nga am nga retard. ñu buddi ñu ñu ñu ñu buddi sa compteur consommé nga tu n'es pas d'accord au lieu ñu expliquer la voilà ñu ne la euh, ñu ñu ñu on on t'envoyé on t'envoie balader et on l'a même un peu vu on a vu certains de vos agents euh, dans les débats yi ñuy am ak Oumy Ndour c'est houleux c'est c'est c'est très violent parfois elle est elle est elle prise à partie et que vos éléments là amuñu peut-être la compréhension que vous avez de la démarche de de oumy est une démarche citoyenne saluée et qui a rencontré l'adhésion des consommateurs. Ouais, mais mais mais Maimouna ñun on est d'accord et dans la démarche lu may wax rek mooy ñun on est dans le learning by doing dañuy avancé mais yéene bu ci bu ñu am ci client bi tax na erreur bu ñu rencontrer dañuy xool nan lañ koy contourner dañuy jàng lii. man dama si jàngat lu bëri et aujourd'hui aussi il faut ñu nangu ne le client de Sénélec au niveau commercial a une pression il faut ñu nangu loolu parce que aujourd'hui il y une compétition saine entre les agences ku si nekk day ñëw bugg am le meilleur taux de recouvrement ku si nekk day bugg a ñëw am les meilleures performances commerciale mais loolu nag dinañ ko continuer di def mais terewul kii nga xam ne mooy suñu raison d'être bi mooy notre client ñu jox ko cër bu mu war ñu jox ko gëdd bu mu war mais loolu on fera les efforts nécessaires mais mun a dama ne la ku régler le problème de déficit de production là dans ce pays war nga mun a def effort nag léegi pour satisfaire ce client euh,